mbokku jullit yi mbokku taalibe yi euh, la xalif général di jinne Thierno Moule Sow le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde maa ngi leen di nuyu bu baax tey nag ñoo ngi ñëwaat suñu troisième numéro li ci jinne tey nag li ci jinne mooy lan tey dañu ñëw waxtaan jinne yi fan la ñuy faral di dëkk maanaam jinne yi fan la ñuy faral di nekk jinne yi fan la ñuy faral di gën a nekk macha allah jinne yi fi ñu nekk dafa bari macha allah alhamdulilah jinne yi dañuy faral di nekk ci nit ñi ci ci këru nit ñi maanaam ñun dañuy faral di dëkk ak jinne yi ci bari parce que bu njëkk da ngay dégg ñu ne jinne yi ci àll ba lañ ne mais jinne yi ñun ak jinne yi ñooy dund ndax nag jamono ji euh, da nga gis ne àll daanaka amatul desatul léegi àll yëpp gor nañ ko jaay nit ñi ñu tabax léegi nag jinne yi du ñu tuxu jinne yi ak nit ñi ñooy dëkk boo xoolee ci kër yi ñun ak jinne ñoo dëkk boo xoolee ci waañ bi aussi ñun ak jinne ñoo nekk ci waañ bi même si toilette yi sax am na ay jinne yi dëkk ci toilette am na ay jinne yoo xam ne ñoo ngi dëkk ci douche moo tax booy dugg da ngay muslu ci toilette booy sangu tamit nga bañ a taxaw parce que bu dee jigéen nga euh, booy sangu nga bañ a taxaw parce que jinne yi en général euh, jinne jigéen ñu bari jinne yi ci douche lañ leen di duggee wala nga dugg douche di woy wala di wax yooyu en tant que jigéen parce que am day am jinne yi nga xamante ne ay chaatin dañ lay mën a duggee ma mën na la jaarale ci foofu ci ci douche bi mën la jàpp tamit en général tamit digg njolloor tamit ñii kenn ku ne xam ne digg njolloor baaxul maanaam digg njolloor ñoom seen période la ci la ñuy dem di rëbbi di dem di rëbbi te nag bu ñu dajeek yow digg njolloor en général bu ñu la fiiree dañ lay jàpp moo xam timis moo xam ay deux heures heure boobu noonu wala xaaju guddi parce que guddi moom en général ñoom yenn guddi guddi yi boo koy guddee di dox mën nga dajante ak ay jinne parfois ñu bëri dañuy dajeek jinne jommi tiit ne am na lu ma dajal sama karaw bopp bi jóg naa ak yooyu en général jinne la jinne yi dañuy dëkk ci géej géej gi dañu fees dell ay jinne macha allah boo xoolee garabu guy yi tamit jinne yi dañ fay dëkk boo xoolee tamit macha allah mbalit yi li ñuy wax sën mbalit jinne dañuy dëkk ci mbalit yi jinne yi dañuy dëkk fu ne fu doomu aadama xalaat jinne mën na fa dëkk te jinne moo ëpp doomu aadama doomu aadama yëpp ci monde entier bu ñu leen dajale woon jinne yi dañ ñuy wër sept fois kon jinne moo ëpp nit maanaam bu ñu leen doon gis rek dañuy xam ne ne ñii euh, ñoo ëpp nit macha allah jinne yaa ngi ci géej gi jinne yaa ngi ci jaww ji jinne yaa ngi ci partout dans le monde am na jinne nga xamante ne ci asamaan la ñu nekk gis ngeen ba taay jinne ne ma man maa ngi jóge ci asamaan maa ngi jóge ci ci juróom-ñaari asamaan maa ngi jóge ci ñetteelu asamaan maa ngi jóge euh, ci huitième asamaan yow Thierno yow yaa tax ma wàcc si adduna bi loolu defe naa ne macha allah ñu yéen a ngi dégg loolu jinne ñoo ma koy wax kon nag nañu maanaam pour moytu jinne Euh, benn da ngay ànd ak gëm yàlla ba pare set di di jàng alxuraan parce que nag boo xoolee dañ naan euh, jàng alxuraan dara gënu ko lu baax la mais dafa am ay jinne yi amante ne dañoo jàng alxuraan tey boo leen jàngalee ayatul kursi yu benn ñu tari la un million ayatul kursi yu jinne yooyu nag ayatul kursi yu munu leen défense parce que ñoom soo jàngee ayatul kursi ñoom ñu jàng ayatul kursi yu kon loolu li la ciy dimbali mooy musluwaay rek suñu borom moo la mën a jàppale wala nga ñëw ku mel ni Thierno Moule Sow parce que ki nga xamante ne yow li nga li nga li li nga koy maanaam li nga koy bëgg a dóoree moom moo la ko dàq kon boo koy boo ko jàngalee ayatul kursi da ngay gis ne parfois sama taalibe woo ma Euh, wala euh, su may nit ñu ne jàng naa ni du question ayatul kursi mënul ci jinne ayatul kursi mën na ci jinne mais ci jinne shaatin la mën jinne bi nga xamante ne gëmul yàlla gëmul yonente bi jinne bi nga xamante ne yéefar la kooku ayatul kursi da koy lakk loolu bien vrai ayatul kursi dafa am doole doole bu mu am suñu borom rek moo ko xam waaye nag bu dee ki nga xamante ne yow da ngay jàng ayatul kursi muy jàng ayatul kursi boo tare ayatul kursi doo ko mënal dara léegi nag kooku noonu suñu borom wàccee na ku mel ni Thierno mu Sow nga xamante ne yàlla jox na ko xam-xamu jinne jox na ko mbootu jinne jox na ko baatinu jinne am na li nga xamante ne si kattan suñu borom suñ la ko joxee bu soobee suñu borom jinne boobu nga xamante ne da nga ko doon tare ayatul kursi mu lay tare ayatul kursi ci kattanu yàlla boo amee musluwaayoo du la mënal dara ndax nag li ma naan naafeq du dugg aljanna parce que am na jinne nga xamante ay julit naafeq lañu am na jinne nga xamante ne ay jullit lañu ay nitu yàlla lañu ay xaafisul xuraan lañu ay ñi ñu baax lañu comme ñun doomu aadama yi rek am na ñi nga xamante ne ay ñi ñu baax lañu am na ñi nga xamante ne aussi ay nit ñu doy waar lañu léegi nag loolu yëpp nag Euh, bu la yàlla dimbalee mun nga ut protection li ñuy wax fossé blindé fossé blindé nag macha allah gis ngeen doomu aadama yi ñoo ngi ñëw di ko ut si bu baax a baax fossé blindé wala vite fait bi wala volcan joni joni bi yooyu dina la musal ci jinne yi nga xamante ne jàng nañ alxuraan jinne yi nga xamante ne boo jàngee ulan auzu bi ñu jàng ko jinne yi nga xamante ne boo jàngee ulan auzu bi rabbin naas ñu jàng ko jinne yi nga xamante ne boo jàngee hulu allah ñu jàng ko jinne yi nga xamante ne boo jàngee ayatul ñu jàng ko moo tax suñu borom créé ku mel ni jaam bu gën a xeebu ci jaam ñi mu mu sol ko mbootu jinne euh, jinne yi nga xamante ne dañuy faral di të nit ñi ci alxuraan bi suñu borom wàccee ma ñu ñu ñu leen di faagaagal ñu leen di tuubal di leen teg ci yoon parce que euh, nekk jullit euh, taxul nga bon am na jinne yi nga xamante ne dañuy nekk jullit ba pare kàccoor bon ba doy waar gis ngeen barki démb ba ma jàppee Hamza xam sa xam sa jinne bi nga xamante ne fekkee na juddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jinne boobu noonu gis nga ba ma ko jàppee mu ne ma neexul ba neexul man naa fekk la man waruma lii waruma ndax ku fekkee juddu yonente bi di ànd ak yonente bi di xeexle yonente bi yor jaasi loxo bu ne da ci yor fukki jaasi te fukki jaasi bu ne boo xool dina mot di kilo wala cinq kilos kon kooku noonu bu demee ba dugg di ruube di yàq kon xam nga ne mooy naafeq bi ci lañ ko jàpp daal di koy tuubal euh, mu yeeslu mu nekkaat ci diine bi kon nag macha allah euh, ñuy jàng alxuraan alxuraan lu baax la amul lu féete alxuraan kaw ndax ñun suñu lépp alxuraan la boo xoolee ñun suñu yaram alxuraan la suñu jëmm alxuraan la suñu bët alxuraan suñu làmmiñ alxuraan la ñun suñu lépp alxuraan la léegi nag ci biir loolu nag yàlla dafa mën a créer ci biir loolu la créer ku mel ni nu Moule Sow léppam doon alxuraan mu def ci moom mbóot def ci moom baatin bi nga xamante ne moo jinne yi nga xamante ne dañoo jàng alxuraan yàlla wàccee ku mel ni Thierno Moule Sow mu mën a lijjanti jinne yooyu ci kattan suñu borom euh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax euh, TMS TV dafa nekk télé bi nga xamante ne ak chaîne bi nga xamante ne day yeete day jàngale parce que da ngay gis ñu bëri dañ may woo ne ma Thierno Moule ma ne ko naam mu ne ma maa ngi lay sant di la gërëm ñii dañ may woo di jooy ñi bu ñu ma jotee dañuy jooy ba pare doog a wax ak man ay yaakaar yaakaaruma woon yow la yaakaaruma woon dinaa la jot ci no yow la ma ne la waaw ma ne la nag sant rek ndeysaan lépp nag ma sante ko suñu borom ndax nag woo ci téléphone rek jooy ndax mbégte xam nga ne suñu borom la ñun nag suñu lépp suñu borom la lu suñu borom jox duñu ci naagoo duñu ci rëy waaye dinañ fas ne taxawal jàppale askan bi ndax nag jinne yi dañoo bari te jinne yi dañoo ruu dañuy ruube te boo xoolee ne borom xam-xam yi bari jinne yi ñoo leen jaaxal ndax nag jinne yi dañoo bari pexe benn boo amee xam-xam mun nañ dugg sa 18 benn mun nañ taal sa kër taal sa oto def loolu accident boo gisee borom xam-xam yu bari dañuy faatu faj yombul de faj mu continuer <laughs> yombul tey da gis ne am na ki nga xamante ne nee na sama tur la daan faje mais ba mu commencé di faj <laughs> doomam feebar. gaa yi xoj doomam nar ko faat mu woo ma mu ne ma cerno nangam ma ne ko waaw ah faj dafa laaj risque benn mën nga yor xam-xamu faj waaye doo am doo am pouvoir doo am li nga xamante ne li ngay protéger sa bopp ndax nag jinne yi ñàkk ñu fayda ba nga xamante ne chaque jour nga leen di yàqal chaque jour nga nar ko def yoonu tool nit feebar nga faj nit feebar nga faj dinañ associé dinañ kompaloo jóg ci yow soo amul xam-xam dañ lay rey tey gis nga boroom xam-xam yu bari dañ leen di rey wala ñu paralyser leen waaye nag suñu borom dafa am ñu defal ñun jinne yi mënuñ ci ñun dara dañuy jéem nag ci ñun bu ma la nee du ñu jéem ci man damay wax lu ma neex dañ may fexel waaye plan bu ñu laal ma laal loolu nag xam-xam dëgg la li may def nii dafa ànd ak man dama yor njaboot yor ay doom macha allah yàlla may nañu njaboot mais nag yàlla daf ñu sutural ndax li ñu ne dëgg la ndax bu ñu li ñu ne su neewul woon dëgg heure bi faatu naa ndax nag ñaata nit la ñuy sauver ñi nga xamante ne tey dañoo waroon faatu tey bu ñu ñëwee ci man ma sauver leen dem na ba ñu tuddee ma sauveur de la vie li nga xamante ne hôpital mun na ci dara médecin mun na ci dara kenn munu ci dara nga ñëw jàkkaarlook la xalif général des jinne le king of the king ma jàkkaarlook yow jinne bi nga nekk su ma ko xoolee mu wàcc loolu suñu borom la kon nag man Thierno ma dala suñu borom lu dul di ko gën a sant saa su ne dem di sant suñu borom di gën a tuub di raam di jéggalu ci kanam ci lim ma jox man man lu suñu borom jox man xam naa ko li ñu suñu borom defal man xam naa ko. kon nag macha allah di leen ñaanal jàmm bu baax a baax dee leen dee leen abonné aussi ci TMS TV ndax nag abonné bi dafa am solo. TMS TV bi dee ko abonné muy nekk sa portable saa soo xëyee di ko seetaan dina la dimbali bu dee cent pour cent euh, cinquante pour cent ci jinne ci dëmm ci rab maanaam duñ la mënal da nga gis ni day jënd portable rek mu jékki-jékki portable bay yàqu yooyu yëpp jinne dañuy jaare ci portable yi jinne fu ne lañ mën a jaare ndax dañoo sew yor xam-xam yor baatin fu leen neex ndax li nga xamante ne bu ko neexee mu nekk ngelaw bu ko neexee mu nekk ndox lu ko neex nekk xam nga ne kooku noonu franchement parler kooku kooku ku yàlla may dëgg moo mun a jàkkaarloog loolu kon nag di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm TMS TV ca kaw ca kanam na ko ñëpp seetaan Thierno Moule Sow le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde jërë ngeen